mbokki amateurs yi déglu leen le 28 avril 2024 ci arène nationale deuxième journée clafu Gaston production mu war a am ay combat yu doy waar ndax déglul Garga 2 Doudou Sané le combat de rêve caatu Yoff jàkkarloo fa ak caatu yaraax le duel des lébu Ndiaye Tine dina fa jàkkaarloo ak gàmmu Gamou Gueye laa ilaaha illallaah njaga doole ak boy jaxaw hey boobu combat waaye bu leen fàtte benn yoon bés boobu mbokk yi Albouri mi sab xorom lool dina fa jàkkaarloo ak sëtu Falaye Balde bi Jacob Balde Mamor bu Faas jàkkaarloo fa ak bébé guy gi alliance Baldé mel mi du xam ngeen ko dina fa jàkkaarloo ak doomu Grand Dakar bi ci kiri caacu waaye nag mbokk yi li gën a neex ci bés ba mooy grand combat bi déglul Gwen Shiboy lébu bi xale bi bu jugee a jàkkaarloo ak Alioune Seye numéro 2 bu waalo doomu géejuwaay bi di ndaanaan mbokk yi ñu jël combat boobu nag di ci rendre hommage Serigne Modou Niang borom Mouniang production teewal lamb fu ne loolu yëpp nag Gaston production nee na affiche point dong ngeen ko mën a seetaane en live pay view daw leen gaaw jënd seen moo la may tey li nga am ni exact wallaay ma continuer si west west lan ngay wax si Papa Boy Djiné waaw Papa Boy Djiné dans un trou vraiment maa ngi koy waaw maa ngi koy maa ngi koy encouragé mm-hmm. parce que yombul quoi parce que lu musul am ci àdduna amul mm-hmm. lu musul am ci àdduna mm-hmm. lu bees rek ay am amul dëgg la waaw donc man pour man na entraîné entraîné mo entraînement moo wóor c'est vrai na jege na jege paa bi na jege paa bi man man loolu laa wax na jege paa bi nga lutte olympique waaw du olympique. Mm-hmm. na jege pa na na jege paa bi. moom bu la woowoon tu es prêt pour eh, jàppale ko. bu ko ah, entraîné ah, dafa nekk si difficulté. bu koy bu ah. nekk comme ni mu wax koy mm-hmm. jàppale. ngay ñëw teg ko si yoon. Mm-hmm. parce que entraînement moo wóor. bu la kenn na. c'est vrai lutte simple. man nag am na am na xam ne dafa may damay gis mbëri di entraîné man laaj leen euh, Pa Papa Sow Papa Sow mos na ñëw mos na ñëw regroupement lutte olympique. waaw bu muy bu muy dem. Euh, Égypte. Thiès Thiès. Mm-hmm. échauffement kese échauffement mu mu dee échauffement. Mm-hmm. mu pare. Ah. échauffement échauffement kese. Mm-hmm. mu pare. si échauffement. kese kese. te en cas mu doon entraîné. Isabelle jigéen. gaa yi ne ko mu ne ah kon entraînement bi gaa yi ne ko entraînement commencé gul de mu ne ah mu ne commencé gaa yi ne ko commencé gul. ça veut dire que moo ne nga mbër du ñu entraîné. du ñu entraîné non du ñu entraîné. dëgg la luñ foog ne entraînement loolu. du ñu entraîné. moo tax bu ñu nee euh, xam nga ñii par exemple ñii temps temps ñuy bëre ñoom daañu doon moo tax boo xoolee ñoom seen stade bi. waaw amul woon barrière. da ngay commencé bëri fii ko fële. Mm-hmm. waaw. comprendre loolu mm-hmm. loolu mën nga ci bëri une heure de temps doo sonn. la mais actuellement bëri lu mu laaj. tey mm-hmm. tey tey tey ko entraîné doo ci génn. lutte olympique trois minutes. trois minutes jeex na <laughs> laaj. Hmm. te boo paree dañuy nooy. <laughs> dañuy nooy nooy nga xam ne. Hmm, nga xam ne. Hmm. bëri dañu dem entraîné. waaw te ñu koy wax ay baay du ñoo ñoo koy jox xaalis. du ñoo ñoo koy. ñoo yor famille am. léegi mu rëcc ko rek moom ko dañu ko war a wax. na dem entraîné. kese loolu laa koy loolu ak li muy dégg ne dañ kaa liggéey dañ ko yàq. non liggéey yooyu ay wax la. yooyu ay wax la. psychologie la la. dëgg la bu entraîné dina xam ne lii du liggéey. bu entraîné. Mhm. nga xam ne lii du liggéey te loolu maa ko wax tey. na entraîné rek. booy Boy Djiné ñu ngi lay encouragé di la wax ne euh, tu es très jeune euh, am nga avenir metti na quand parce que démb combat bi à la li nga ko mujjee loolu la ñëpp doon bëgg nga commencé ko mais gis nga jël nga si defet bul décourager et la vie continue yi rek ñëwaat bu ñu jógee foofu dañuy dem record record moom dañu jox parole ki nga xam ne mooy Eumeu Sène mu ne Eumeu Sène nee na dans l'enceinte il n'y aura pas de pitié contre Sa Thiès le 5 mai nee daal ci biir enceinte bu wenn sa sifflet ba génn géew bi mm. ah dina tardé. waaw parce que loolu la war a andi loolu la war a def. Ah. Eumeu Sène ku vraiment champion la ndaanaan la te aussi référence la ci côté làmb mooy comme sànq fi ma doon waxee rek moom aussi il a carburé dund na ay jafe-jafe na ne tey dafa dem ba fin de carrière xëy na làmb door a ubbeeku ci côté am tey mhm. kon yaakaar naa ne moo tax mu xam ne entraînement bokk na ci li ko ciy génnee moo tax a mm. chaque fois ama seen bu sumee rek physiquement te da am satisfaction ci état de forme bi muy andi kon loolu yaakaar na ne mbër yi war nañ mën a roy ci loolu ci côté mm-hmm. mbër bu assidu ci entraînement mm-hmm. xaarul kenn si entraînement jot mu jóg dem entraîner ji du xaar coach du xaar entraîneur du xaar dara mm-hmm. kon yaakaar na ne loolu loolu ama amoon solo la kon digganteem ak Sa Thiès waxee ne du am pitié du am yërmande dañ da dinañ gëm ne combat boobu noonu du am yërmande ah nee na boo génnee moom yërmande dootu fa am <laughs> ah, wóoruma itam maa koy arbitré de. Ah. <laughs> bëri nañu moom de arbitre moom vraiment secret lay noonu. waaw boobu uh-huh. boobu kenn mënu ko xam moom. waaw uh-huh. waaw mais daal li mu mën a wax moom la la Sa Thiès di wax rek. waaw waaw je ku ñëw. Uh-huh. da nga ñëw pour gagner. pour gagner daal que le meilleur gagne daal. que na y aura pas de <laughs> seen diggante waaw. waaw ñoom ñoo ko doon wax yërmande amatul. waaw. Hmm. ah nañ nañ ko dem nañ ko doxalee noonu rek parce que ñun tamit loolu lañ ci bëgg de. loolu lañ ci bëgg ñun dañu bëgg combat bu neex. Mm-hmm. combat bu metti bëre am. xeex am. xeex am waaw que le meilleur gagne. que le mm-hmm. yi nee na moom bu arbitre bi génnee seen diggante yërmande ma na. waaw na dëgg li mu dëgg la parce que kii dafa daan ñaari doon magam ko daanee xam nga mbër na boo ko daanee guddi gi du nelaw. Mm-hmm. mu ñëw nga nag nga daan ñaari doon magam. xam nga kii moom day xaar arbitre bi neeru seet. Uh-huh. moom mu ñëw sawaay teg la lum teg la lum lay teg waaw parce que kooku dafay yàgg fanaanoo defet googu waaw fanaanoo mer googu la defet su ko defee te kii mm-hmm. xam nga ne moom boo ko jox ma ëmm moom loo boo ko jox mu la kay mu la mu la kay mu la kay mu la kay delloo kon nag foofu na safara lay doon waaw ah, toujours si euh, point de presse bi moom nee na combat bi moom bagaar moom force day am waaw Eumeu Sène nag combat am à chaque fois gis combat bu bëri rek ñëw rek jàpp daan wala ñu jàpp ko daan ko mhm. combat moom lu mu neenu ay coups dina dem te yaakaar na ne koy xaarate aussi si si combat bi ne ñaari mbër la nag yoo ne seen style xeex dafa xaw a niroo parce que ñoom ñaar parce que ñoom ñaar ku si nekk da laaw parce que combat bi xeex laajul xeex mais cokkaas xeex mënu si am surtout côté Eumeu Sène côté Eumeu Sène hmm. ba combat ñoom nee na day am xeex par force Lamine ne est-ce que combat laaj na xeex. laaj na xeex laaju ko daal mais ma la wax. bu ñuy soufflé Sa mu dóor ko rafal bi. fexe ba du Sa Thiès du ko du ko du ko du ko ko jox rafal te moom it boo ko joxee mu delloo la ko. mu delloo la ko moo tax kon nag xeex. kon xeex dina am mënuñu ñëw te te mosante wu moom man mënuñu kii te mosante wuñu. xëy na du du loo kooku kooku ko kooku loolu moom baaxul waaw ko defee def erreur mm-hmm. erreur bu rëy. waaw moom li mu mënin moom si si mbër. Mm-hmm. kenn du ko changé. waaw da nga ko koy yokkal. Mm-hmm. waaw antenne yi xam naa dañu am leneen yu ñu koy yokkal ne nii yokk yow safara nga. nii ak nii ngay ngay ngay ngay ngay ngay demee. waaw yu wutal ko feem. ak ay yeneen pexe. mais rek pas ñu ñëw changé loo ko déedéet. boo ko changé loo rek euh, jox ëmb seen avantage bu rëy a rëy. la bi lu tax nga posé wu question ndax xeex war na fa am place. Ah, dama ko yaakaar ne. Eumeu seen warul xeex ci combat bi rek loolu laa yaakaar. la jàpp ne Eumeu parce que Eumeu Sène xeex bi muy xeex xeexu laamu. waaw ma Sène day xeex ba def nii. Uh-huh. te damay ragal mu. fii day am ouverture. waaw damay ragal mu xeex nag. Uh-huh. Sa Thiès daw jël ko. Sa Thiès daw jël ko. waaw perkat yi. waaw xam nga kii nee na nii lay xeexee day laaw. waaw laaw ñoom ñaar ñëppay laaw. waaw xam nga Sa sax du xeex Sa Thiès moom. ñoom ñaar ñëppay laaw mais dañu war a xam ne kii daf ko xaw a féete suuf. waaw ëm ëm daf ko xaw a féete suuf pour pour waa ji euh, song ko song ko ba ba ba daj ci suuf ah. dina dina dina xaw a luy difficile lay doon pour mu àgg àgg ko si suuf àgg ko suuf ba féete ko suuf mm. parce que lu mu wàcce rek daal di daal di gën ko gën gën gën ko féete suuf mm. foofu mooy problème bi quoi mais yow toj nga combat bi de. ah hmm? ma ne toj nga ah, combat bi de. ah toujours ñuy laaj si combat bi toujours toujours dañuy dañuy dañuy bëre. donc ñu naka naka naka lay demee. Ah. léegi moom waa ji moom dina fu mu jaar dina fa mu dóor pour wàññi ko. Mm-hmm. waaw parce mag lay bëreel. waaw mag moom boo ko bëggee wàññi foog nga dóor ko. Ah. waaw mu wàññeeku. mais est-ce que boo ko dóoree ba parce que di nga mu wàcc pour que soxna parce que moo kële moom lu muy lu lu ne bëri rek moom mu ngi moom mu ngi si suuf di ko di di ni benn jali jali bi a coom loo xef rek mu moom moom moom waaj waa waa waaf na waaf na boo mooy sa kaw sa kaw nga jëm oh, Sa Thiès tamit dañuy ne toujours lu yàq ko maam day ñëw pour bëgg corriger mbër corriger comme noonu la di ñàkkee contre Malick Niang dafa bëggoon ñëw corriger noonu la ñàkkee contre Boy Niang dafa bëggoon ñëw corriger fii tamit est-ce que war na mën a a corriger hmm. ah, euh, mais moom loolu mooy stylam stylam waaw stylam mooy mu ñëw àdduna bi sifflé mu ñëw yéeg la gauche droite hmm. xanaa daf c'est-à-dire problème bi mooy daf dafa dafa désordonné daf te lépp problème bi si war mooy daf ko war a régler daf ko war a régler dafa désordonné waaw hmm. Ah, Wessex nee na Eumeu Sène nee na moom bagaar day am force. waaw day ne day ne bëre dóor. waaw waaw mais man man xam nga kan maa koy arbitre de. waaw mais xamal ne mbapat lay doon. Hmm. arbitre daal na na naxaar naxaar sëb ci suuf. ci suuf waaw. mbapat lay doon mbapat lay doon de. Hmm. Mhm. père nee na mbapat lay doon moom mbapat lay. waaw fa fa fa lay mujjee fa lay mujjee. fa lay mujjee ah, mais rafaal bi moom day am. ah waaw fa mu jaar am. fu mu jaar am waaw fu mu mu jaar ñu joxoon mais ragal ah. mais mais naka la ñuy naxante waaw kan mooy kan kan mm. kan mooy jëkk song foofu foofu naxante la naxante waaw foog ñu joxante ba pour pour mën a am bunta dëgg ah donc gars yi loolu la ñu leen andiloon si revue de presse 100 pour cent lutte bi donc combat boobu c'est le cinq mai diggante Sa Thiès ak Eumeu Sène ah, y a aussi le premier mai Franc ak Bombardier y a aussi le 28 avril le gala de Gaston Production mu ne war a dox ci diggante Aline Seyde ak Quench mm-hmm. ak la deuxième journée di CLAF mu nekk ay combat yu am solo donc sans plus tarder dañuy dugg nag si ci spécial Balla Gaye 2 Yékini di 22 avril 2012 di jox la le régulateur de l'émission Boucar mu ubbi ko nga léemu ko yaa tia perkat yi tia larbi Lamine Seck mm-hmm. vous avez la parole mm-hmm. aca Lamine ah, Boucar allez waaw père combat boobu noonu li ma si fa njëkk a rek mooy pourquoi le choix de Balla Gaye maanaam xëy na certes y avait d'autres adversaires yoo xamante ne amaana mën ngeen ko jël xaalis moo taxoon ngeen jël Balla Gaye da ngeen gëmoon ne Yékini moo mën Balla Gaye dix fois lan su choix bi pour combat bi taxaw ba pare fan la woon. du du woon problème ah. mhm. mooy euh, Yékini dafa am lu ko daldu ci mhm. bi muy dugg mu ñëw xool ne pour que pour gars yi may ko chance mhm. dafa yàlla avait il avait tout un problème mhm. Yékini naroon na jël gàddu bagage am sax pour pour de pour delluwaat dëkk ba dem toog mhm. tellement parce que mënatul am combat mhm. donc loolu mu nekk handicap loolu ko daloon buggul tamit mu dal ñeen moo tax mu ne woon boo ko buñ koy déglu avant bu yow yëpp dafa ne dina may trois xale dina leen may sens si xale yi boobu fekk bi mu paree si ay moroom dafa ne léegi dina may xale yi ñi nga xam ne ñoo ko féete ndaw ku si nekk dina may sens dina may trois xale sens mbokki amateurs yi déglu leen le 28 avril 2024 ci arène nationale deuxième journée clafu Gaston production mu war a am ay combat yu doy waar ndax déglul Garga 2 Doudou Sané le combat de rêve caatu Yoff jàkkarloo fa ak caatu yaraax le duel des lébu Ndiaye Tine dina fa jàkkaarloo ak gàmmu gi Gueye laa ilaaha illallaah Njaga Doole ak Boy Jaxaw hey boobu combat waaye bu leen fàtte benn yoon bés boobu mbokk yi Albouri mi sab xorom lool dina fa jàkkaarloo ak sëtu Falaye Balde bi Jacob Balde Mamor bu Faas jàkkaarloo fa ak guy gi alliance Baldé mel ni mi du xam ngeen ko dina fa jàkkaarloo ak doomu Grand Dakar bi ci kiri caacu waaye nag mbokk yi li gën a neex ci bés ba mooy grand combat bi déglul Gwen Chiboy lébu bi xale bi xam ne bu jugee waa bar ñëpp jóg moo fa war a jàkkaarloo ak Alioune Seye numéro 2 bu waalo doomu géejuwaay bi di ndaanaan pire yi ñu jël combat boobu nag di ci rendre hommage Serigne Modou Niang borom Mouniang production teewal lamb fu ne loolu yëpp nag Gaston production nee na affiche point dong ngeen ko mën a seetaane en live pay per view daw leen gaaw jënd seen ay